waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu Serigne Fall def mbaa yéen ci jàmm baax waaw man la Fap yéen ñuy laaj ne da ngeen a bëgg dugal ci li ñu laajal imam te mën leen dugg ci Kopar Express ñu mënti dugg foofu te bëgg soxla numéro orange ma ne wala weef nañ jël 77 947 74 80 77 947 74 80 Moustapha Ndaw moo moom numéro bi Moustapha Ndaw.